la ilaha mbokk yi mbokk yi nga xam ne yéenay jàkkaarloo ak ñoom ci biiram ak ci bitim réew yépp euh, ñu ngi leen nuyu bu baax a baax nag di leen ziar di leen nuyoo fii ci mbakki Kajoor fii ci bërëb bi nga xamante ne bii xam ngeen ne yàgg nañ ko nettali mooy bërëb bi nga xam ne ku baax ki Serigne Cheikh Jëmm Fall moo koy liggéeyal Serigne baabakar mbaw te amoon ndigal ci eh, sangam ba eh, di Cheikh Serigne Sidel Mokhtar eh, ñëw tàmbali liggéey bi sans borom dogal Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw wéyal loola tey sëñ baabakar mbaw bañ ko joxañee ba tey joxañ ba la topp mooy daa daal di gàddaay bàyyi ndakaaru bàyyi ay këram bàyyi fépp foo xamante ni bi sanjoon na fa ñëw toxal si ko Mbàkke Kajoor la ko sabab nag mooy Euh, xam na sëñ bi joxañ na te faaw joxañ bi moom day mat sëkk mu door a dellu loolu nag mooy li nga xamante ne bii moom la fi Cheikh Ibra Fall bàyyi mooy bu xasee ay ca la ca des nag moom yaa ca des waaye maam Cheikh moom jox na la te jox na la li nga xam ne muy gën ci yow gën ci say bokk gën ci képp ku la topp ngir liggéey liggéeyal ko am ngërëmam ngërëm li nga xamante ni moom la jëlee woon ci Sëñ Tuubaa Cheikhul Khadim ndax Cheikh Ibra Fall ku gërëm sëñ Tuubaa gërëm la te ku sëñ Tuubaa gërëm yàlla gërëm la euh, yonent bi gërëm la nga am gërëm yàlla loolu nag moom lay sàkku si fii tam xam na ne am na ci lool euh, soo ko bëggee dangay ngay gàddaay ndax dañ euh, bàyyi xel baax na Cheikh Moustapha Fall mag ñi neen suñ ko basaan a jox ndigal moom yeggoon na ci sax dootul maye dootul leble dootul saraxe feeg ndigal la àggu te day ñàkk këram Cheikh Modou Fallou Fall xam nañ ne taxas gam daan ñàkk këram xel kom sax la ko daan dagg ji loolu am nañu ko fekkee sëñ Babacar Mbow mi dafay mel ne moom looloo ko dal ndax moom daa daal di ñàkk këram ndakaaru sax léeg nga dégg ko fa te du teg tànkam këram ndax ay ñoo ko fay indi wala yenn yu mënta ñàkk yu jëm ci liggéey bi kon da ngay xamee ne kii moom eh, te it nag kuy am àddina mu la ko ëppale ndax da koo jekk ba pare xam nga àddina bala nga ko dëdd da nga koy koy am am na ñooñu dañoo dëdd àddina te amuñu àddina moom la daa am àddina pare woon ko gannaaw la daloon Cheikh Fall sangam ba moo ko dal Cheikh daa jekk àddina pare woon ko gannaaw moom it daa jekku àddina ba pare soxlaatu ca dara boo ko gisee xam nga ne tëneem bi xam nga boo ko gisee saa ne nga xam ne mi ngi ci waar moom ndax mu mosuma koo teg bët mu sol gañi laa moom mosuma koo gis mu sol mbax njaxas mosuma koo gis mu sol lenn loo xamante ne nuru ne lii kat luy nuru luy nuru euh, kuy waaj waajukaay la lu may saa su nekk yaa ngi koy xam ci waar wi xam ko ci li nga xamante ne bii mooy eh, jaayante gam jaayante woon ak maam Cheikh Ibrahima Fall te du deñ fii ne daam lu ñuy fàttali Mbacke Kajoor cosaan la ci yoonu murit sama xel day dem ci démb mooy fii la yoon wi sosoo bi fi sëñ Tuubaa jógee it daa dem daa dee dem sanc Mbàkke Mbàkke dekkalaat Mbàkke Bawol gaa nga xam ne fa la gënee jamono waaye fa la jógee dem Daaru Salaam léegi nag ñaari bërëb bi cosaan yi tey sëñ Tuubaa mu Cheikh Rafal moom lañ ko tegaat ci loxoom di ko liggéey e, stade baa ngi nii ñu teg xeer ba fi dem fa la sëñ Tuubaa gënee jamono tekkaat na fa nag ndax fa la jógee dem sanc Daaru Salaam fii la yoon soso fi la Cheikh Rafal jébbaloo tey ñaari bërëb yëpp ci loxol Cheikh Rafal la nekk mooy ñaari cosaan yi te kenn mënut a tudd yoonu murit te tuddoo Mbàkke Bool ak Mbàkke ak Mbàkke Kajoor day mel ne kon Cheikh Ibra yàgg naa am daam euh, li fi xewoon muy jaayante gi mooñ fii fi tey suñu sañoon ci sunu yéene ak sunu pas-pas mooy la maam Cheikh waxante woon fii ak Sëñ Tuubaa na ko jox naa la sama bopp àddina ak àllaaxira te wut sëriñ bu ma àggale ci yàlla ma tax a jóg loolu moom léegi buur nay nopp ba tax na mënut a rëccub dënn kenn waaye xam nga ko kenn waxagul ko ko njëkk a wax na wax ju yàlla du dëkk ba nga naan dama caa bëgg a yegg dama bëgg a yegg ci yàlla ba ko kenn waxu ko ko ko njëkk a wax waxut waxi ko ne moom sëñ Tuubaa xamal ko na ko bu ma xamoon fu yàlla ne doom fekk te Cheikh Ibrahima it bi ñëw bu doonub sëriñ képp lay topp du romb siin lay kan kilifa la fa fekk kat waaye ko faa romb du romb tay ba Dakar fekk na fa nitu yàlla du romb Badar Gueye Badar yi ci wet gi Cheikh Ibrahima na ngir dem gànnaar waxoon na sëñ Modou Maram kan ne ko ki may seet su feeñ ci ñun ñun ñi baal ma seeti ko gànnaar ba xam ci ñuy wax ñi la feeñ kon sëñ Touba rek la doon wër waaye xamul fan la koy fekk waaye nee na ba mu fanaanee te armée siin lay kan ya def listixaar guddi nee na te lañ ko wax yu ko ki ngay seet Ahmadou Bamba la tudd mu daal di jubali Mbàkke Kajoor bi mu ñëwee fii nag maam seex daara ju daal la fekk mooy kuy jàng waaye fu tekkul liggéey moom Cheikh bi ko fi njëkk a def sëñ ko wax nag yaa njëkk a jébbal sa xol ndax fekkoon nga gaa yi xor-xoral lan mooy xor-xoral ñalay takal ak ñalay setal ya yàqal ngir ma ñuy kon la fi Cheikh Fall fekkon ak lim fi indi wute nañ fekk na fi nak ñu bëgg seigne Touba fekk na fi itam nak ñu ñu ñu sopp seigne bi fekk na fi it ñu déggal seigne bi te ndax la leen seigne bi joxoñoon ña nga ca waye nak da fay melne tol bo xamne wurus ak jamaa ca ne nga xamne boko boo tuti commencé womal nga gis ko ñew di parc tabat ba mu ji ay ñam wala mu na fa ji ay basante te la mu bëgg ca loola bu meññee su wàqi woon tuuti jot wurus weeg jamaa bi omal day mel ne loolu la sëñ bi nekkee woon wala mu ndënd moo xam ne dañ ko fort am ko ko tëgg te xam nga ndënd buñ ko tag tëggut duñ ko mën a wàll si daa mel ne loolu la sëriñ bi nekkoon waaye maam seex moo ñëw ne mi ngi lii léegi nag sëñ Daam Abdourahmane la wax ne keroog bi Cheikh bi day ñëw fi la ko fekk nee na bi mu ñëwee liggéey la féetewoo maam Cheikh nee na sëñ Daam nee na ku mas a gis Cheikh fii ci Mbàkke Kajoor wenn waxtu ko gis mu waxtu fajar ndax lu mu yendoo liggéey day bàyyi bu gudd jot mu roñ ko su ko roñee ba mat mu jël goj bi ak baag bi root ndaay yi bu noppee mu tëral goj bi de bala ëtt bi sëñ daam nee na waxtu fajar di fenk fa nga gis a seerafal boo ko fa gisatee suba la ci waxtu woowu kon ku ko amutoon jot sëñ Moussa Ka wax na ko yéen liggéey fa naa ne root gaa yi nelaw ba naan xuréet ba lay gànnaar naan kur kuréet moo fa xewal daawul doxi moo te bi mu ñëwee am fekk na fi àllarba ak dibéer lañ daan demal sëriñ bi yu ñaar yooyu duñ duñ sëñ bu yónnee sëñ bu yónnee duñ dem sëñ Moussa Ka ne moo fa xewal nuyoo di raam monu tere yaranam fekkon nañu jang fa mam mom mu pexé ha ah, fekk na daara yi di rir mu dindi alarba ak diber kon da fay melne lepp lu fi massa fekk rek ci lo xamne xeyna doon nañ ko dund ak señ bi te taxuton xam deug deug señ moy lan cheikh ibrahima ko dal di legi nak bi señ bi tas daara ji nak señ dam neena cheikh modou fatma karok te te ndam togal mo wax la ne sa bay cheikh rafal tasé fa sun daara ja oh. mam cheikh kat da yono sayu mat ca waxtu fajar nee na bi mu dikkee fii ci Mbàkke Kajoor yenn ko say wi dajeeg sëñ bi yor ab jàkkam mooy bant yi mag ñi yor di fëgg naan ndax yeewu ngeen ñu ne waal mu ne jug leen taal jàng jot na nee maam Cheikh naan ko Mbàkke bàyyil doomu jaambur yi lii nga leen di wax te wax leen la sa borom wax ñu jëriñ te nga bàyyi di wax booba sa booba sa maam Cheikh nga yett buntu nag waaw te mooy buntu jaayante mooy liñ fi indi mooy jaayante gii fee raj sukkoon loolee nag la doon la doon xibaar sëriñ bi mooy bàyyil doomu jaambur yi nga leen di wax li sa borom wax mooy la la la sëñ Touba taxaw woote ndax Cheikh Ibra wax na ko ñaari yoon ba ñetteel ba mag ñi ne nañ décret bi door a wàcc léegi nag euh, li ñuy wax comme gën tëraan yi comme yow sunu wayjur nga te xam nañ sa bëgg Cheikh Ibra Fall diggante njëbbalu maam Cheikh googu ca Mbàkke Kajoor ak jaayante gi mu fi jaayante te booba it nañ bàyyi xel ne ku baax ki 30 la am Cheikh Ibra am 27 ans ci lañ taxawal yoon ñaar fukki at ak juróom-ñaar la Cheikh Ibra am sëñ bi am fanweeri at. ñu taxaw ñoom ñaar jàkkaarloo ki ma yàlla seetloo ba na naa ko jox sama bopp kooko maanaam képp ku ko liggéeyal ñaq yi bàyyeekoo ci yow mook say bàkkaandaroo Cheikh Ibra waxoon na ko nee na am na ci bàkkaar yoo xam ne jàpp ko raxas julli du ko raxas ñu ne ko lu koy raxas mun ñàqal sëñ Bamba Cheikh na ñaq day raxas yuq raxas yax door a génn ok kon Baye Gabou li li xewoon fii ci Mbàkke Kajoor ci ñaar ki fan ci weeru koor te boobay Cheikh Ibra fekk na fi mbooloo yow boko don doon nan nga koy jangati li fi Cheikh ibrahim indi lu don nan lañuy ñuy def man ci jariñ ci jamono juñu tollu nga xamne gis nañ ne yoonu murit la Cheikh ibrahim waxante won ak seigne Touba fi fi ne yoon wi tay tay la ko gën soxla mu yité muy joxe sa bop muy ñak nak fi ñuy waxe yow yoonu murit kuko ëpp sant ci amul ci aduna moy Cheikh ibrahim dañu tollu fo xam dañ ko wara jangal aduna bi ndax Cheikh Ibra képp moom moo mën a sëñ Cheikh Ibra Cheikh Ibra rek moo mën a euh, sowe àddina bi fi mu toll waaw loolu moom dañ ciy d'accord euh, toll nañu foo xam ni dimension Cheikh Ibra ah bu ñu ko bëggee taxañ dimension Cheikh Ibra waaw bu ko bëggee taxañ dimension nationale ëpp na ko parce que dégg ngeen ab les professeurs Djibril Diakhaté mu ni dem naa Gabon benn professeur ni ko man Baye Fall laa mais du gis ngeen l'église catholique ni sëñ Muntaxa ñu ngi jéem te man ñu yéen ngeen def ba man liitaloo te loolu lépp Cheikh Ibrahima la sëñ Moustapha Sarr yu ñu koy gërëm bu baax ndax dégg nga mu ni li ma li sëñ Touba bokkeek ñëpp du ma ko waxtaane li sëñ Touba wuuteeg ñëpp lay waxtaane

te yoonu bu itam li ko tax a jóg mooy dafa sosu ci Islam islam li ko tax a jóg mooy jàmm ci àddina bi islam li ko tax a jóg mooy yërmande bari ci àddina bi mais islam li ko tax a jóg tamit mooy àddina yërmande boobu ak jàmm jooju day tas defe naa kaafatan li naas la ñuy wax ah. donc kaafatan li naas dafa tas ci àddina di mais kon bu ñu xoolee kadior ak maam Cheikh Ibrahima defe naa doon nañ ci waxtaan ak tout à l'heure ñoom fax bi defe naa dañ ci gën a islam ak li doon def lépp ak jaas yi li muy jib lépp atteint duñoon trente cinq pour cent de la population jëfu maam Cheikh Ibra moo tax tey islam egg quatre vingt dix neuf pour cent de la population te loolu dinañ xam ni li tax murit àgg fa maam Cheikh moom moo tax kon Mbàkke Kajoor ñun am jàngat la ci ñun di leen sant di sant kilifa yi nga xam ni ñooñu fi jox ndigal ñëw fi mais ndigal yi tamit dañ ko war dañ ko war a yëkkati yóbbu ko ba ca kaw ndax sëñ touba bi fi di dem Bawol da wo sëñ ibrahim bakke mam Cerno nettali nañ ko fi deg ni ko dama bëgg a wutuma fii ndax dama bañ bakke ko jox rap kon sëñ Siini Moxtaar dafa yéssal ndigalu borom Touba ndax da fi da bañ fi rap kon boy dëkk bi moom waru la rap ba faw mais nak li ci gëna am solo moy ab dëkk lan mo koy duddal waaw ak lu tax jox ko sëñ babakar ma wax nga ko lolépp to lolépp man day waré li te sëñ Touba du juum kon tànn bi ñu tànn sëñ Babacar daa fekk mu am ay critères yooyu ndax sëriñ Ablaat nee nañ ma nga dëlee di ñëw ma nga dëlee moo jara wax ko am yi gët mais mi ngi di jaru koo wax am dëkk sëñ baabakar boo xëy na lii booy wut da ngay wut maçon bu baax booy tabax wala nga gis kër gu baax gu mu tabax fekk mu nekk Baye Fall encore boole ci boo gisee am dëkk rapport na boo xam ni ñëpp gàddaay na ñu muy dem di ko waxee mu fexe ba ñëpp ñëwaat kon kon mi ngi nii lool nekk du Amérique du fenn kon mi ngi nii la donc expérience boobu am na ko déjà yéen ñi fii ñëw tamit ci ñeenti at yi depuis depuis quinze di ngeen xam ne Mbacke Kajoor mi ngi yokk yokk boo xam ni non seulement day dundal xol mais ak dudd lay dundal ci boppam. donc kon tey jii Mbacke Kajoor dëppoo naa ak yoonu murid di ko buggee woon ci euh, man koo tas ci àddina bi mais bu loolu lépp woyee ñun li nga xam ni boo ñu gën a itteel. mooy yoonu murit man ci yoonu murit li nga xam ni moo ma gën a jor mooy li nga xam ni si sëñ dina ko wax li sëñ Tuubaa bokk la kenn te ñëpp xëy na jàpp nañ ko niñ koy niñ koy niñ koy qualifié daal neexuñu loolu léegi ban apport la am tey ci yoonu murit ban apport la am ci yoonu murit et pourquoi ñun tam ñu war a am intérêt yeesal loolu ci yoonu murit bu leen fàttali ko di Serigne Touba bi bu ñëw di sanc ci Mbàkke Kajoor boobu Saalum lañ jóge te li tax ñu demoon Saalum mooy dañoo demoon fekk ki nga xam ni ci jàkk bi nañ ci islam moo fu ëpp doole muy Bamba Jaxu jullit yëpp ñoo wër ko jullit senegal gépp ñoo wër Bamba Jaxu lañ lan la ñu bëggoon mooy jële fi ak kéefër muy siin waa julit yëpp bu ñu dajaloo benn siit duma leen loolu question la waaw kon islam nan lay amee ndam ci réew mi kon islam boobu bu ñu songoon tubaab bi fu ñu suñ suñu waa ji képp songu tubaab ji muy sëñ tubaab. donc te ñun yonent bi nee na islam dañ ko war tas ci bi te jullit yëpp dajaloo lañu Sénégal ci ginnaaw Bamba Jaxu song benn dëkk muy siin te mënuñu ko daaneel waaw kon tey islam boobu yooyu dañ ko war a tas kan moo koy tas léegi ak ci lan lañ koy tase loolu mooy question boo xam dañ ko war a xam tey jii boo jëlee islam yëpp ñoo wër Israël te mënuñoon am ndam ci Israël lu ko waral kon ci yow léegi wax nga lu am solo mooy kon islam est-ce que dañ ko war a tas ci ay gànnaay wala dañ ko war a tas ci jàmm ju mat sëkk. ak loo xam ne dañuy fexe ba nit ñëpp ñëw ci biir islam tey jii siin googu nga xam ne moo taxoon tey ñu bëgg leen def ay siin ndax am na ku fa nekkoon benn sëriñ mu ni ah Bamba siin ay yéefar la ñu de wante neexuñoo daan ndax jub nañu te seen ñàkk la ñuy dunde tey siin googu boo fa demoon koo woo Basiru ak Fàllu képp nga fay gis siin googu màbb na siin googu tey sëñ Saaliwu nee na la Bamba bëggoon ba des fa moom la Serigne Touba am te bant dammul. ah <laughs> maanaam li that en the question loolu la les Sénégalais doivent se questionner que ñëpp la ñu bëggoon ci ay ndam te ñoom ñëpp bu ñu dajalee te mënuñu ko Serigne Touba ak rek def nañ ko te bant dammul te loolu boo livré livre Doudou Mané bi wax na ko tubaab bi ñoo ñëw di Cheikh yow li ñu jaaxal séeréer yii. kenn mësul na soppi seenug dudd jéem nañu waa islaam jéem nañu bu tëj ñépp yow noo def ba soppi leen Duudu Mamaane bind ko dans la livre dans son livre bu leen damaa ñëw bàyyi leen ak seen aada nekk ci man sama sama ci li gëm ba ñu demee ba ca biir ñu xam ne lañ la ma nekk moo gën lañu nekk ñu ñëw fekk si ci li ma nekk loolu arabu sud doxu ko keneen doxu ko donc le problème du mouridisme ah par son essor bi nga xam ni mooy offensive mooy jaase mooy léppam muy Cheikh Ibra donc loolu la ñu war a kon kon man jàpp naa ne ak Baye Fall képp moo mën a soppi àddina bi waaw Baye Fall képp nag waxuma waxuma ci la ren de Baye Fall laa la moo ko mën a soppi kon léegi dañoo war a xam ni kon ñun yow wax nga ko fii Mbàkke Kajoor képp ko fi mos a jëw xam nga da ngaa wax lu am solo nga ni nit ñi bëggoon nañu sëñ Tuubaa gëmoon nañ ko mais dañ koo jàppee woon moroom waaw dañ ko jàppe woon morom ma moroomu doomu aadama rek ko jàppe woon moo tax sëñ Bay Jaxate ni da ngaa nekkoon suñu morom ba yàgg ngay suñu morom dañu xamal suñu morom Cheikh Ibrahim la ba mu fa njëkkee ñëw li mu njëkk woon gaa yi mooy kii du morom morom la du morom morom la waaw donc loolu c'est dialectique léegi ñun tant que jóge ci dynamique bi jàppe Serigne Touba suñu morom ah di doomu aadama la comme ni nga xam ni courant islam yëpp la jàppe doono doomu aadama la yow même waa Màkka yonent bi nit la ñu ñut nga jàppe ko dynamique doo créer dynamique maanaam doo créer ab dynamique boo xam dynamique buñ koy wax mooy lampe bi bu leeree tey ji daam plus ak moins le fleuve Sénégal bu mënee am dynamique bay roose c'est parce que lee daa kawe lii suufee loolu lañ tuddee dynamique ah le jour à la nuit dynamique la dund ak dee dynamique la kon buñ jëlee jàppee sëñ Tuubaa ni ñun nit la ci ñun comme ni nit ñëpp bëgg a jàpp yonent bi doo créer dynamique te boo lu amul dynamique du jur maanaam du jariñ doomu aadama est-ce que maa waaw maanaam pas-pas ak yëngu yooyu kon tey Mbàkke Kajoor yow li ma ci posé question bi kon Cheikh lii bu njëkk soppi mooy xam leen ni kii du moroom boroom la bu ko kenn fekkete ci ab néeg du moroom bu kenn ba mu ñëwee itam Mbàkke Kajoor ba ko sëñ Omar Saaw di jiite day di kii boroom la kenn du ko jiite kon li mu njëkk a ak nit ñi mooy xamal leen di kii du te loolu sëñ Tuubaa na ko mais nit ñi daaw ñu ko appliqué ndax sëñ Falloo ko wax nee na moo toog ni du ma du ma bàyyi kenn sëñ Fallu di ma ba fekk fan jolof njébbalu du ma magu kenn donc <laughs> donc mais nit ñi kon Cheikh Ibrahima li wax sëñ Tuubaa maanaam définir sëñ Cheikh Ibrahima définir na ko fi ah kon kon lu leer la kon dynamique boobu lañ njëkk a créé dynamique ba nga xam ne Cheikh Ibrahima ënd na ko ci yoonu murit wane ni sëñ Tuubaa mii muy topp du ma romb kenn te loolu ñu jàng arfa war nañoo xam ni yonent bi sóor yàlla sóoratu ujaraat wax na yonent bi du seen moro c'est ça qu'on appelle le respect maanaam le respect et loolu boo jëloon dans la philosophie jàng le respect mooy loo xam ne tant que amul mënoo créer dynamique da ngay respecter d'abord li nga nekk diine ba ba pare yonent bi dina mën a wax nga loolu nag kon li ñuy jëkk rek le Cheikh Ibrahima loolu la jëkk indi fii xam ni seriñ Touba du moroom loolu nag jii. boo jëlee apport wu Cheikh Ibra boobu ba ba ñëpp dugg lool di lool moo tax tey autorité bu amee Sénégal wala dans le monde Mouride kenn gën leen am autorité te nit bu amul autorité maanaam du liggéey dara. Macky Sall bu fekkee dafa nar a jege jële Sénégal te Sénégal yi gëmuñu ko wala jàppe ko mën a wax ñu weddi ko respecté wuñ ko Sénégal du mën a développé kon euh, sëñ Cheikh Ibra dañ ko war a sant ci loolu maanaam li mu instauré l' autorité dans le mouridisme bu loolu. Mbàkke kajor gi nga xam ne fi lañ daje le pacte d'allégeance di ko waxe ban njariñ la amal njariñ la mom pungis gis nañ ko moy bu doon def un bilan du mouridisme balay may ñëwaat jeexale ci Mbàkke Kajoor man dama tok ci wetu suñu modou Aminta ñuy définir les chantiers du mouridisme am ko ni xana xel ko ma carrière suñ Moodu Aminta ni man da yoonu lepp la fekk carrière ta xeer la won ki santu sant Wade nekk Thiès ni ko xanaa raay ma mën ko doxub raay bi doxub xel kom képp gën a bett raay bi donc bu ñu jëlee les trois grands chantiers du mouridisme yow gis naa ngay waxtaan ci raay bi gis naa ngay waxtaan ci lu nekk carrière bàyyi faalee ci man raay ba ñaata nit la joxe gis naa nga ko yaa gën a xam waaw lu tax ñu tudde ko Lamp Fall Lamp Fall ñu tudde ko ko kon wane ne le grand chantier du mouridisme bàyyi faale ci man raay bi tam moo ci man

ñëpp dañoo wax lañ doon def ci jàng xam-xam pour xam borom pour jaamu borom la dem ay daara def dem dem ainsi de suite Comme, comme, bi noo ci def samp Thiès Madina Fall essor de l'islam dans les grandes capitales Dakar def essor donc l'implantation du mouridisme dans le Sénégal dans un but économique maanaam jur Cheikh Madina Fall au loyer de 1892 le fa de di ko xaar ba fii dem Dakar toj ko dellu si santi ñëw sant chemin de fer ci jëgët jëgët yi. léegi nag woo waa Bawol ñëw ne ñëw leen peupler Madina Fall man Madina Fall googu laa vous voyez donc le système de peuplement des villes loolu c'était pour maintenant à partir de de Madina Fall attaquer euh, euh, propulser islam dans les villes et et et la Mouridia man tey quartier ba ma juddee buy taax ko daawoo fa gis murit daawoo fa gis benn murit te tey jii boo fa demee mooy bu kep fa jib Dakar ainsi de suite voilà donc l'apport économique de de Mame Cheikh Ibrahima Fall dans l'islam et dans le mouridisme loolu noonu loolu kenn mënu ko wax donc xam nga lepp dox naa l'apport dans les grands chantiers du mouridisme yoy ñep ñoko ko fekk maintenant l'apport nag maintenant dans le peuplement des capitales dara ak yooyu tamit c'est Cheikh Ibra ba paré am un apport économique actuellement à la scène Serigne Alla Sène néna ma en 1946 il y avait pas neuf minutes à Dakar tey jii euh, euh, l'informel est grande partie donc yooyu yëpp nañ ko santé mam Cheikh Ibrahima Fall. légui nak ñu ñëw ci Mbàkke Kajoor gi li nga xam ne moo ñu fa di déggal bi nga xam mom lañu wara yéssal war bu ngeen ñëwee ci Mbàkke Kajoor di ngeen gis ni Mbàkke Mbàkke Kajoor plateforme multiculturelle la loolu mooy xeet yëpp fii daje mënoo fee ben benn go xamni do dégg kuy làkk ku dul làkk japonais ku dul làkk nangam. léegi ñooñu nag léegi nan la ñuy naxanteeg ñoom nan la ñu war a jëflanteeg ñoom ba ñu dugg islam ndax lool mooy suñu mission. mission boobu tas na ba ci bitim réew dem ngeen bitim réew di def donc le mouridisme mission loolu lép donc lool lépp c' est des apports yoo xam ñun war nañ cee gën a waxtaan ban méthode nag moo gën a wax naa leen ko léegi ay siin la ka la ka màbb ak méthode bi ka nga xamee ne Cheikh Ibrahima moom la ko màbbee ñun nag fii ci Mbàkke Kajoor li nga xam ne moom lañ fi am léegi ci yeesal ci la ñu nekk. ñu jox ko sëñ babakar mbaw lolou nak day yeesal bo xam dafa deppo ak jamono te dégg naa seen émission deppo ak jamono bi moy bo ñëwee de yeesal ab ab ab ab ab ab dëkk da ngay fexé ba dëkk bobu ngay yeesal yobale ko ci wàll yépp deug na kérok sëñ Aliou Badr di ak ki ngeen di wax ba jigéen ñu fi liggéey fexé ba bo fi ñëwee gis gàncax ginaat fexé ba bo fi ñëwee gis picc yi sap ba paré ñu fiy def les monuments yi nga xamni c'est des monuments historiques manam fi Cheikh Ibrahima Dia euh, donc bu do def le bilan yéen mën ngeen def le bilan ndax ñëw ngeen fi trois fois. xam ngeen di euh, Mbacké Kadior est un cadre de vie. est un espace de vie. hein donc lolé ñu ngi def donc du yeesal bâtiment rek delluwaat donc le mouridisme c'est dans la dans les formes les plus contemporains manam li depp ak jamm lañ kay def moy dundal ak dund go xamni day du and ak lor. maanaam day nag dund goo xam ni la ngay lekk du la la du la lor day nekk ce qu'on le bio ainsi de suite ba pare amal jariñ waa dëkk bi ba pare amal jariñ waa ba pare amal njariñ waa bitim réew waaw voilà baax na te loolu lépp dañu ne ci Mbàkke Kajoor waaw wax ngeen kon Mbàkke Kajoor amal na njariñ waa dëkk bi fii amal na jariñ waa réew bi te mi amal njariñ waa bitim réew donc dans un dans yeesal boo xam ne da nga cee boole yow fa nga nekk tey jii muy maam Thierno maam Thierno ñu nga ñu nga ñu jigéen ji koo gis mi ngi sant am nañu liggéey jigéen ñaa liggéey bay jaay Espagne jigéen ñaa liggéey bay jaar Mandia ñu ngay laa ñu ngay jaay sali te tey jii ko ci gis kon léegi loolu yeesal la waa bitim réew ñu ci bari dañuy ñëw fii ni a ah, woo seen baay gis naa benn américain bu ñëw bu ni ko man baay dootuma dellu fii la wooyeem sëñ baayam ci kanam sëñ Babacar ndax la ma doon wër ci àddina gis naa ko damaa jàppoon ni jëkk njëkk àddina bala muy neex nga am dollar yu bari mais gis naa àddina fu mu neexatal te wéeruwul ci dollar sama kanam la doon wootee baay bi ah ñu bari bu ñu ñibbi fii dañuy jooy kon léegi ñii ñi nga xam ñu ngi leen fi formé ay ambassadeur du mouridisme la et du mouvement Baye Fall chaque année ñuy gën di ñëw.

te sëñ Sidi Moxtaar sëñ Touba mi joxe ndigal la ni maam Cheikh maam maam sëñ Ibrahima Mbacke ñëwal toogal ma fii ba mu gent léegi nag lan mooy gental ab dëkk loolu nga war a xam est-ce que dëkk bu fekkee da ngaa bañ mu gent sëñ bi dalaa war a jox ndigal la defal ma kër maam Cheikh defal ma fa ñuy siyaaree Cheikh Ibra ak daara nga def ko bàyyi ko delluwaat ndéem est-ce que loolu dina tax dëkk ba suqali ko boo dee tey jii Macky ay ville yoo xam ne bu ngi ko bëgg a def ay ville sainte mais ville sainte yooyu loo fa def bâtiment rafet ba pare ñëpp dëkk Dakar tax du tax dëkk boobu suqaliku maanaam am dëkk la koy suqali mooy ay nit. ma ne léegi nag mi mi ngi nii jarul wax ay borom it gët sëñ Babacar nekk na koo xam ne Europe la jóge gis ni déem xale yaa ngi dem Dakar ñu ngi gàddaay di dem Dakar déem dëkk maamam mi ngi dee mu ne kon naa ñibbisi fii.

des McDonald's ou, ou bien des sandwichs de Dakar ou n'importe quoi ou bien n'importe quoi doo xam tax fu mais ils ont bay di donc l'exemple des tax ma ni ngi de jarul wax ay des <coughs> ndax li xew ci ci wetu bambay motax ma ni xam nañ ko mel que... nak bu fait suñu sëriñ sëñ Cheikh ñëm ko dañuy gëna xam ndax ñu xam ne suñu sëriñ xam na ku nekk la nga man mu def ko waaw ah, donc loolu moo tax exemple boobu te boo ñëwee fii tam di nga gis ne yéen ñi fi ñëw ret ak déwét war ngeen a xam ndax Mbacke Kadior mi ngi yokku la yokku <coughs> baneen bi Il yokk dëkk da ngaa am dimension mano ñëw ni damay defar Dakar rey lebu yëpp boo yeesoon am dëkk da ngay tàmbalee ci ña fa dëkk fexe ba ñooñu gis ci seen bopp yeneen nag c'est trop scientifique mooy le développement durable mooy d'abord il faut nga xam Dundu moy lan ak ñan espèce moy le, c'est l'espèce végétale moy garabi, yi gi gàncax gi ak bayu bay ak nit te def loolu gis ngeen cette dimension a am la boole jur geek yépp am nañ fi kon non seulement mi ngi mais amna apport je vous ai l'exemple de l'américain ki nga xam ne il cherchait le bonheur dans le monde

Combien, combien d'emplois, d'entrepreneurs ont été créés que les femmes, ils ont un compte bancaire, un million de trésor parce que intéressant. Donc, en tout cas, il y a un signe de vie. L'espoir commence à renaître au niveau de Baké Kadior par les populations de Baké Kadior. Et même de Darou Marnan, un Touba attesté par Mam Donc, c'est dans le bilan de Mam Tchern Ibrahim Fall. Donc, il faut mais boo fu ñëwee tam da ngay gis ne ay tubaab ngi fi te ñun yàgg nañoo bugg a percer au niveau international amoon nañu vision boo xam ci islam defe nañu islam jaase rek la defe nañu islam rayante rek mais bu ñëwee fii il il redécouvre une autre dimension de l'islam boo xam ni jàmm ak liggéey ak jariñ sa sa dëkkandoo te loolu mosuñu koo gis fenn ah sëñ Mamadou bi la mu wax ci Masaalikul Jinaan

waaw sëñ Tuubaa li maam Cheikh Ibrahima moo tax mu mën lu kenn amul donc loolu laa moon donc l'apport de l'apport de Mbacké Kadior est une plateforme non seulement international mais qui s'enrichit dans le développement local maanaam ñëw rek naan damay def développement comme ay Orange nga xam ne toute sa croissance est exportée vers l'étranger dafa dafa implanté wu Mbacké Kadior dans dans la méthode Baye Fall de suivre les enseignements de Serigne Touba et de Mme Cheikh Ibrahima suivant le pacte d'allégeance ndax liggéey bi ngay wax Cheikh Ibrahima moko bu nous avons wax. day day dem ci all ba. nous avons mais néanmoins di ñaa ñu ngi def écoles yo dañ a nous ba ak donc le développement de Kadior est d'abord perceptible par ñi d'abord localité bi tay te bo demoon tok tay mam Thierno wax na ni lii laa yàgg a bëgg te mënuma koo am do do beug a wooyi sax seigne Babacar dem mu defal ko ko far ñu indil ko seigne Babacar seigne Babacar fi kon seigne Babacar est un facteur de développement lol mam Thierno boo man ngeen ko interviewer ci impact présence seigne Babacar am Mbacké Kajoor wala doomam bi naan sëñ Lamine tamit def les finances islamiques yooyu yëpp ngeen vous aurez vous aurez des impacts sociaux économiques de Bakke Kajoor

ba pare yëkkati gannaay di leen tak loolu du jëmee islam kanam han ah? li jëmee islam kanam dañ ko xam moy doxi du baye Faal bi fo ñëw di leen liggéeyloo seen yàq ba pare di leen delo seen yàq ba pare may leen jàmm wa loolu ka moy conclusion bi donc model bobu model de bak kadior moy model bi nga xam di adina gep mom lañu wara jël manam model de travail mais bu and ak jàmm loolu moo tax tey siin boo nga xam ne Bamba Jaxu ak waa diine gon nañ ko te mënuñu ko tey ji Cheikh Ibrahima si fekk si leen dugg ci islam daf leen a bàyyeeg la ñu nekkoon ba pare may leen jàmm ba pare ñu dem ba xam ne moom li mu nekkoon ci liggéey moo lool loolu nag peut-être mën ngeen cee def ay comme nous am yéen a yor seen presse yéen a ay journaliste da ngeen di xool impact sociaux yu Mbàkke Kajoor feeg déwén ngeen waxtaan ceeg maam Thierno ngeen waxtaan ceeg jigéen ñi xool Mbàkke Kajoor lam leen jariñ ngeen jël ay tranche ay ay julit yoo xam ne ay tubaab yoo xam ne danaa ñu lu tax ñu fiy ñëw mooy la ñu gis fii ci dund goo xam ni mënuñu ko am seen dëkk ñoom nag ñàkk indiwu leen fi mais dund gu sell moo leen fi indi waaw kon dégg non seulement Mbàkke modèle Cheikh bi day dindi ñàkk mais day indi dund dund gu sell. maanaam li nga xamante ni bi maam Cheikh Ibrahima Fall jàngale na ko ci biir kër Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee. Eh, te mooy ak taalibe mooy taalibe gi mooy pas-pas bi. te bokk na ci joxe sa bopp. waaw joxe sa alal. Mm-hmm. joxe sa njaboot. Mm-hmm. ndax loolu la jaayante woon. bi mu jaayantee ba léegi nag loola fa la teg tànkam bi mu fi jógee it mboolem ku ko mas a wuutu. ci loolu la nga nekk ba tey jii ndigal yi fii jib yëpp ñu man ci dara la Cheikh Fall waxante woon ak Sëñ Tuubaa te sax ca moo waral ñu man ko ndax ku ne xam na ne bu maam Cheikh jaayante woon itam wane ginnaaw ñi fi bàyyi teguñu seen tànk ca loolee. lii duñ ko man waaye dañoo ñëw feddaliwaat la seen Cheikh Fall waxante woon ak Sëñ Tuubaa Cheikhul Khadim ñu ñëw feddaliwaat ko. teg ci seen tànk ba tax ndigal lu ñëw buñ ko songee daan ko ban yéeg-yéeg nga ci am rawatina nag fii ñu toll mooy stade bi nga xam ni mooy stade Mbacke bi nga xamante ne bii yàlla dogal na tey mooy li gën a yitteel sëñ Cheikh Jëmm fii jamono toll nga xamante ni bi tey mi ngi ci ma nga fa toog fas yéene murid yi fekk ko fa ngir ñu ànd def bëgg-bëggu seex Cheikh moom Mountakha la fa amoon démb ak li fi am tey mooy football moo fa xewoon bu tàkkusaan masaana jot bu ñu bu bu fa dara xewee yuuxu yi foo toll di ko dégg. waaw démb yuuxu yi foo toll di ko dégg ndax lan saytaan nañ fa déjjiti sànni ko ca àll ba samp fa drapeau bu lislaam. Euh, tubaab bi dañoo nax nax goo xam ni maanaam jëf yu mel noonu képp moo ñu mën a soowee ci nax yooyu maanaam fexe ñu ba ënd lu jariñ loo xam ne nit ñëpp ànd nañu gëmandoo ko te mu jaral leen seen bakkan léegi li nga wax mooy joxe sa bopp la don di soi. loolu moom lu reuy la bo jëloon tay ay philosophie da nan la morale et l'éthique mais da nan la morale moy euh, ay ay règle morale moy li baax na ñëpp ko wara def mais dañ lay exiger nga def ko bu dé éthique nak moy ti lu sel ak vertueux mais da nan au delà de la de l'éthique c'est le don du soi manam joxe sa bop wa joxe sa bop xam nga da ko tudd loolu mooy bari na ci yoo xam ne ñaa ngi ci àddina bi tant que joxewuñu seen bopp ah duñ ko man moo tax boo gisee américain di def ay volontariat da nga gis ay volontaires ñu wax ci àddina bi waaw mais yooyu tamit doxul ndax yàlla taxul wéeruñu ko ci yàlla. Ah, bu maam Cheikh nag day nekk joxe sa bopp boo xam ne yàlla moom mooy tax te loolu lim ñu jural gis nga ko lim ñu jural mooy yokkute bu rëy la ñu jural lim ñu jural tey jii mooy joxe goog mu joxe boppam.

ki motu ko waa Sénégal ci Baye Fall lañ jëm xale yi te kenn mën nañ taa dem nag waaw ket mën nañ taa tee dem moom ci ci yëpp ci yoonu murit wi moom amul lu mu fiy waaw amul lu muy prouvé moom laa la ko ndax chantier yu murit yëpp tàmbalee ca jumaa ja carrière ba ca raay boo ca xelkam wane nañ fii tey jii tous les chantiers à quatre-vingts pour cent ñoom ñoo koy liggéey ñaari ji seddoo li ci des mais nag léegi ci biir Sénégal l'éthique du mouvement Baye Fall mooy nit fu mu amee njariñ fu nekk ñu la kii mooy Baye Fallu kër gi ba dégg naa kii mooy Baye Fallu église bi dégg naa kii mooy Baye Fallu Abdou Diouf dégg naa kii mooy Baye Fallu diw donc loolu ça prouve que euh, maanaam Cheikh Ibra éthique maanaam ku baax wala ku waxuma sax ku baax mais ku am njariñ ndax am baax ak am jariñ daa daa wute nit mën naa faatu ñaan ak a baaxoon nit mën naa faatu ñu ne ak a julli mais nit dat maa faatu ñu da am ak amoon njariñ ak amoon njariñ nag moo gën Cheikh nag ci ak amoon jariñ la nekk xam nga baax te baax gi am ci yow taxu ñuy wax loolu de sëñ Saliou wax nañu maanaam dem yow egg yow képp loolu taxul ñuy wax nee dem yóbbaale ay nit moo tax mooy amal nit ñi njariñ te gis nga bu daa ñaan rab bi wax jariñ loo xam ne daa yaatu ba ñëpp xacc waaw jariñ lu yaatu nag ba ñëpp xacc ba pare ñi ci gën di sawar seeni ba pare yalwaani wuñu tey jii tous les mouvements islamiques que tu vois du ma tudd benn mouvement soit arabu saoudite moo leen di financé baa Qatar boo leen di financé donc sawar nañu parce que xaalis baa ngi ñëw mais nag est-ce que les mouvements des jeunes Baye Fall daayira yi est-ce que gis nga ci kenn koo xam ni Touba moo lay financé ci seen cawartay bopp lañ ko defee ah sa cawarte goog moo indi lu mel ni Masalik mën a am loolu moo indi lu mel ni màggalug Touba tey jii mënoo koo comparé benn événement ci kaw suuf ah te loolu lépp nag tey jii action yoy moom boko andi waaw kon bu stade bi xam nga nit ñi quelquefois il confond les sports ah hein, ak la compétition compétition day jur chauvinisme te ñëpp gis nañ nawetaan est-ce que nawetaan waruñu ko bayyi man dem naa ba Japon benn coupe du monde dama ba amoon réunion ma fekke ko. mais gis naa ni loo ñu wax ay coupe du monde sport ba mu jaral ji ay reete jarul dara ndax Brésil ñaata yoon la jël coupe du monde est-ce que tax na Brésil développé wu. Argentine ñaata yoon la jël coupe du monde est-ce que tax na Argentine donc ña nga xam ne dañuy kaas naan stade waruñu ko woon a toj dañoo xamul dara stade boo xam day yàq xale yi di leen dugal ci fo boo xam bu ñu paree dañuy jamante ay paaka. dañuy doonoo ci loo xam ne jaru ko te lu ko jarul te loo xam ne boo ci amee ndam doo doo mën a teg doo mën a teg sa baaraam ci ndam bi lii la ma jariñ ba lii la ma nàngam lii lii la ma wàññi képp ngay mën a gis waaw lii la ma wàññi képp ngay mën a gis. waaw loolu tey jii li ko wax buñ ko wutalee coow lay jib muy coowu Baay Faal li nga xam dañ fay def daara jël alxuraan sab ko ci ci dëndu xale yi jàngal leen ba pare bu ñu paree ñu dem ca université ba jàng xam-xam. jàng du ñuy am mbay am diine loolu ku koy comparé ak leneen da ngaa mën a kii ah. bu dul loolu sax ñun ñoo war a am fulla fa nga xam ne sëñ Tuubaa fa la ganee àddina fowukaay waru koo jege ah. waaw te jëf jooju yëpp nag tey jii maanaam lu tax ñun Baay Faal ñu war a am ndam mooy liggéey lu mu rëy rëy ah rek sëñ bi Baay Faal Je ne parcelle numéro 1 numéro 2 numéro 3 muy janatul makhwa euh euh ki makhwa daru tadzil ak touba belal 6 parcelles la def ba wayale wa 6 parcelles ci modou habité di di ci dig ya ray ba wax goko kon wa donc cheikh ibrou c'est l'espoir hein hein de la jeunesse sénégalaise maanaam Sénégal yi c'est la solution de l'Occident parce qu'ils trouvent ici leur bien-être le rituel bi def l'enthousiasme et la gaieté li mu àndee maanaam liggéey su liggéey te doo fayeeku le don du soi ba pare ànd koog mbégte demal wër àddina doo ko gis fenn te ku la gis xam ne yaa ngi naat bu fekkoon day ñëw fekk ñu bekkoor sax ñu ni waa gaa yaa ngi mais saa yu ñëwee dañ ñuy fekk ñu naat liggéey boo xam ne fayee ko woo ci dara ba pare ànd ceeg mbégte ci Cheikh Ibra képp la am ci kaw suuf. te loolu mooy indi épanouissement li tubaab di indi épanouissement on ne peut s'épanouir que par la sueur de son front ñàkk képp moo mën a épanouir nit. te léegi ñàkk boobu nag day di sañ Modou Ma moom sëñ Mamour bi loolu la wax te Cheikh Ibra ko indi ñàkk sa biir diine pour jariñu yoonu murid nag le mouridisme c'est son support de croissance c'est un support d'expansion vers l'extérieur Alors, loolu quel ce que ko te dinañ def ay conférence vous bu ngeen bëgg ngeen def ko Nous fax comment Cheikh Ibra a contribué à l'expansion du mouridisme à l'expansion expansion islam dans le pays voilà Alhamdulillah. La la.